ñuy tëjeeg yow rek mooy junni ko ko léegi euh, réew mi toll na foo xam ne université bi am na am na problème étudiant yi diggante étudiant ak gouvernement bi maanaat université bi daal yëngu na te jamono mosoon naa tollu foofu mu fekke ko mhm. waaye mu sol dallu bàyyi sol dallu maam woo xale yëpp invité leen ci Tivaouane waxtaan ak ñoom ba pare ñaan leen nag ne leen damaa bëgg ngeen naan pour ma dem waxtaan euh, président. Mhm. ba ko defee dox ca tànk jàmm yàlla indi na ci ndox mu sedd bi. ba tabaarakallaahu euh, mbiri université yëpp jaar teguwaat ci yoon. te jamono yooyu nag tollaan nañ foofu loolu ñu ciy fàttali ci waaw liñ ciy fàttali ne taxawaay bu rëy la man mii yàlla xam na ni mhm. jataay booba. ko yàlla boole woon ak kii bi donte dama doon dem ak a ñëw waaye loola moom fi la ma fekk fa la ma fekk jataay boobu euh, comme ni ma la ko waxee ci njàlbeen avant ñuy agsi ci université bi noonu la ko defee woon ak lan syndicaliste yi convoqué na leen jag saaw syndicaliste yi convoqué na leen Tivaouane bi crise universitaire bi yegsee waxtaan ak ñoom ba jàmm am waaye crise universitaire bi bi mu yegsee noonu la leen def da na a convoqué ba muy woote ba muy woote Mansour mbay la woo suñu papa Mansour mbay yàlla na fi yàlla na ko yàlla yokk wér ni ko indil ma rajo bi mu indi rajo bi mu ñëw mu waxtaan ak moom ni ko Mansour man de dama bëggoon dama bëgg a def benn communiqué pour woo étudiants yi pour ñu wuy ma ndax dama bëgg waxtaan ak ñoom ba mu ba mu ko waxee Pape Mansour Mbaye Pape Mansour Mbaye nee na man nag ci sama euh, sama doom sama doom ak tabaarakalla ak sama ñeewant ma xam ni xolam fi mu toll te ma xam étudiant yi ak université ni mu jaxasoo ñoo xamante ni bii am na ci ñoo xamante ni bii ñu ngi ci wàllu diine am na ñoo xamante ni bii ay communiste lañ am na ñoo xamante ni bii gëmuñu dara am na ñoo xamante ni donc ragal na woote bu toll noonu jóg ñu te sëñ Abdou du ca am ndam. mu ni ko waay papa loolu doy na waar de mu ni ko Mansour demal rek indi rek demal rek wooteel ma demal rek tegal ma ki ma ki ma ki ma sant ma woote bu wootee ñu wuyu ko ki ma sant ma woote bu wootee ñu waaye ba mu wootee fa tabarakallah sama xaliqin Tiwaawan lañ ko fekk keroog étudiants yëpp parents d'élèves yi étudiants yi ko fekkee kër gu mag ba mu yegsee dañuy ndax gan ñi ñëw nañ ñu ni waaw mu ni duma leen recevoir sama kër de ci néegub yàlla ba bi ñu yàlla boole fa laa leen di recevoir solu dàllam def ca jàkka ja ñépp fekk ko fa toog keroog mu jox kenn ku nekk parole ci ñi nga xamante ni bii ñoo fa nekk ci étudiants yi ak ak euh, parents d'élèves yi ak élèves yi keroog sama rakk sama doom laay wax di doomu duut sàll dut sàll mii bu bàjjan sa feetu si doomam fekk na booba moo jiite étudiants yi nekk euh, élèves yi élèves yi nekk lycée Malick bu cees keroog moo wax ci seen tur keroog ba parole ba ba ba par porte parole étudiants yi seen représentant jëlee pa jëlee kaddu dani maam woo nga ñu woote bi nga ñu woo li ñu ci yëg mooy woowoo ñu ngir sa bopp ñun ba ba ñu déggee sa kàddu la ñu xam ni suñu bopp a tax nga wooñu loolu mooy kon ci anam googu lañ la bëgg a wax ni wax ñu li nga bëgg ñu def ko bala nga ñoo wax ba balañ laa wax ci suñu bopp sax balañ laa wax li ñu metti wax ñu li nga bëgg ñu def ko ndax xam ni incha allah li nga ñu digal la ñuy def waaye teewul mu ni ko waaw dama bëgg nag yéen wax leen ma rek lii leen metti mu ni ko maam ñun li ñu metti ñu di ko revendiquer jàpp nañu ni ñu ngi ci foo xam ni war nañoo mën a xam fu réew mi toll ba du ñu laaj lu yenuwul maanaa ñun maam li ñuy laaj lu yenu maanaa la yëg nañu ni ñiñ koy laaj am nañ ko te mën nañ koy te war nañ ñu ko defal moo tax ñu leen koy laaj jamono jooja crise ba lëkk gënoon a ëmb mooy ay infrastructure surtout équipement wu laboratoire yi ci yooyu jamono nee na ñoom ñu mel ni ñuy jàng te jànguñu parce que laboratoire yeeg bibliothèque bi dara amul équipement yi dara matut Cheikh bañ ko waxee sëñ Abdou ni ko ñun nag maam fi mu ne nii li ñu gis ci réew mi mooy dañoo nekk ci ëtt bi kilifa yi nekk ci biir néeg bi léeg ay yax di ñu jóge ci biir néeg bi di wadd ci ñu di ko sànni ci ëtt bi yax nag fu mu jógee rek yàpp waa nga des ci biir ba pare ñu walbatiku ñu ni kër dëkk bi gerte rekk a fi nekk yéeyi leen gerte loolu lañ nanguwul maam maam ñun loolu lañ nanguwul te loolu la ñu dundee ak ñun suñu bëgg-bëgg mooy lii bañ ko waxee sëñ Abdou ba pare radiyallahu anhu mu daal mu daal ni nangu la ñu wax xam ne lu ñu man la mu daal di woo ki nga xamante ni mooy porte parole aminul usra di cheikh alxaaji sëñ Abdul Aziz Sy Al Amin yabal ko ni ko demal ci gouvernement bi ni leen ni yëg lii yëg li nga jëlee fii nga yóbbul ma leen ni leen ñu wutal ñu saafara ci lii ba gouvernement ba ñëwee ba mu demee ba ci ñoom waxtaan ba mu dellu la mu indi ni mën nañ koo debloo ko ci xaalis sëñ Abdou ba mu see dañu ko jarul jarul publier mën nañu lu ko ëpp dellu man yëg naa ni mën nañu lu ëpp nañu dellu ba ñu delloo ba ni lii mooy ba fa ñu mën a yem sëñ Abdou lii baax na nañ ci jàpp ba mu ne nañ ci jàpp ñu ni def nañu nag commande yi bañ demee sëñ Abdou di dox de ba ñu def ñu ni def nañ commande matériel yi ñu soxla yépp xa étudiants yi ba ñëwee ñu woo mu woowaat leen de ni leen yëfaa nii commande nañ ko mu ne ko maam commande yi kayit kese la yàgg nañ ñoo wani kayit yi kese yoo xamante ni bii dara du ca topp gannaaw bi dañoo bëgg ñu wan ñu lu effectif loo xamante ni yëf yi pare na ba sëñ Abdou delluwaatee ba mu dellusee indi lu effectif bañ ca jógee ci la crise boobu fay nangu nañu. dund condition yi ñu doon dund waaye lam leen digoon fa tabarakallah sama xaaliqum keroog bi suñu Abdou ñëwee di rendre si compte ma Abdou fekk na yaramam diis dañ leen nga dem dajeek ñoom ca jumaa ju mag ja foofu la suñu Abdou dajeek étudiants yi wax leen li nga xamante ne bi mooy résultat yu kii ñoom ñëpp ñu daal di kontaan fa tabarakallah sama xaaliqum yaakaar naa kon man lam yahtam bi umuril muslimina fa laysa minhum bu fekkoon ni ruux googu wax dëgg yàlla mi ngi dox wala ñu koy yëg di ko doxal ni nga xamante ni noonu la ko góor bu baax googu doon doxale kon du ma ni crise du am waaye mën naa bañ a yegg fii mu yegg waaw mën naa bañ a yegg mu yegg. Euh, jërëjëf Youssoupha euh, macha allah li ñu bëggoon ci leeral leeral nga ñu ko tabaarakallah ñi nga xam ne fekkewuñu woon jamono bii li ñu ci leeral tabaarakallah euh, dugg na ci suñu nopp te jàpp nañ ko yaakaar naa dutuñ ko fàtte kon Cheikh Abdou Aziz Dabakh baax daal lii moo tax kenn du ko fàtte ndax mos na ko wax ne man daal dama Abdou Aziz daal dafa jàppee boppam benn mbedd mbedd boo xam ne ay këram ko féete ndeyjoor ay kër féete ko càmmooñ ñu ne ma Abdou bu benn kër boo xam ne am na yàqu-yàqu bu bu ci am yàqu-yàqu loo ci mën ci defar defar ko nee na moom ci jam ci maqaam boobu la tax tabaarakallah kon xam naa dañ lay dañ lay bàyyi rek nga euh, tabaarakallah looy tëjee ci ci bis bi nga xam ne ñu ngi koy fàttali ko ci àlaaji Abdou Dabakh muy 14 septembre waaw alhamdulilah 14 septembre sëñ Abdou moom ku ñu war di fàttaliku ci jamono ju ne la ak ci lu ne ndax sama waajur wu góor moo daan wax ni radiallahu anhum mooy borom alluwa ji nga xam ni kenn du ko nafar di gàkk sama baay daan na ko wax Cheikh Alhaji mooy borom alluwa ji nga xam ni kenn du ko nafar di gàkk lu mu lu mu loo bëgg a doxal ci àdduna ak ci diine boo xoolee na mu ko defe woon defe ko ko ndam ngay am tuyaaba ngay am ndam ci nit ñi lay jóge tuyaaba ci yàlla kon loo ci dugg ci loolu di ko am fa tabarakallah sunu xaaliqiin daan na wax it ni sama wayjur daan wax ni boo déggee nit ñi ñu leen di way roy a tax waaye way woo xamante ni bii loo xamante ni bii ci way la yem waaye roy topp ca amul solo kon nag sëñ Abdou nii nga xamante ni noonu lañ koy waxtaanee na nit ñi jéem a jël benn jikko jéem a wenn doxalin te bi ci gën a jege mooy ñu jege seen moromi jaam ba nit ñépp kenn ku ci nekk fa nga ne nga fexe ba ku dëkk ak yow xam ni yow jàmmam nga bëgg waaye bëgguloo ayam xam ni jege nga ko yéenewoo ko loolu jàmm kooku mooy mooy njullit na ku nekk doxal ak njullitam na ku nekk jote ak wax ma sax njullit waaye ak nite nit dafa war a nite te nite nag mooy fexe ba nga xamante mooy jàmmal ña la yoon mooy ndox yonent bi sa alayhi wasallam nee na al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadi ab jullit dëgg-dëgg mooy ka nga xamante ni bii julit ñi mucc nañ ci làmmiñam mucc ci loxo te fi mu nekk nii nag gaañ nit ci làmmiñ xew na gaañ nit ci ba ba ay gaañ nit ci loxo sax di ca topp kon nag bu fekkoon ni sëñ Abdou dellu nañ ci moom ak njàngil na kon léegi dama ne nañ ca dellu bañ caa delloo déglu kaset kese waaye ma jéem dellu ca dellu jéem a jëfee na mu daan jëfee wa tabarakallah san xani hada billahi tawfiq ñu ngi dellu kontaan di bég di ñaan yàlla yàlla dollee leen dëgëral ci lii kat moom tabaarakallaahu mooy liggéey bu réy la fal yu balligi shahid minkumul ghaiba ba yonent ba waxoon ci xajjatul wadaa mooy liggéey bii ngeen nekk kon nag yàlla na ci yàlla yooyu la dimbali te incha allahu taala yàlla moom euh, euh, in tansurullaha yansurkum ku mel na nga war a mel la nga war a am yomb la walaahu billahi tawfiq walhaadi bi man ila sawaai tariq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi kon boobu mbokk yi nga ne yéen a jàkkaarloo ñun ci asfiyahi point lii lañ leen jël si fii ci kër Pape Youssoufa Diop tabarakallahu euh, waxtaanu leer wi ci Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh mi xam ne duñ dañ ko fàttaliku du di nekk ci xol yi dañu ñaan yàlla rek yal yàlla yokk leeram ci barkeem te yàggal fi njabootam ki nga xam ne ginnaaw rawatina ki nga xam ne mooy xalifaam incha allah xaaj xaaj Malick si Maodo ak i rakkam ak xalif bi nga xam ne mooy Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane yàlla yàlla yàggal ko fi ak ak i rakkam ak mboolem njaboot sal xaaj Malick yëpp yàlla def saxal ci réew mi jàmm def ci réew mi jàmm kon boobu duñ def xanaa dañuy defal ñaan rek ñu daal di. comme loolu nga wax rek yàlla na yàlla boole nangu lépp sàmmal ñu suñu kilifa yi suñu kanam. te Pape Cheikh Ahmed Tidiane nekk ca kanam te dëppale ñu ak ñoom. kilifa gu du baax daal bu la ko yàlla joxe. yow njaboot lay sa la nga war a ñaan yàlla mooy dëppoog ñoom. amiin yal na yàlla yàlla jox nañu kilifa yu baax. yal na yàlla dëppaleeg ñoom. àggale seen mission. mission bi mu wax mooy ku koy dimbali na ko dimbali ci benn. ba mu toogee ba tey moom Pape Cheikh Ahmed Sène. alhamdulilah kon nag ñun ñëpp nañ ko ci boole dimbali. ci benn lépp mën a sotti. yal na yàlla doon na dem. Fatiha salaatu Fatiha. tabarra'naa min hawlinaa wa quwwatinaa wa i'tasamnaa bi hawlika wa quwwatika yaa rabb a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wala ddaalliin allahumma salli alaa sayyidinaa muhammadin al-faatixi limaa ughliqa